العالمين الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن التابعين وعنا معهم جميعا يا الشيخ اهدني لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالبصر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci weeru koor gii quatre-vingt pour cent ci lay wax nit yu dëggu dëggu ca lañ nekk cofeel bu wér am seen bultuuf xam ngeen bultuuf maanaam day kii bi alay salaam commencé dama ne est-ce que ittaqu firaasatal mu'min kon laa ni dama bëggoon a wax la ko yàlla wax loo billahi lazi laa ilaaha illaa huwa mais noonu la sax parce que kañ dama bëgg dem Modiba fu ne nii loo bëri bëri bëri xam-xam loo loo xam-xam-xam yoon yi boo demoo woon jaaral ñii waaye xam ne wali bakat ñii rek a joxoñ ne wax ji lu bëri bëri bëri am na loo xam ne faaw mu di ci wax muy l'islam bi diine ci koor gii jublu si des quelques jours te muy ponk ci l'islam jullit buñ tagal jotaay tey boo waxee ci actualité yi war nga wax ne lii ñu dëgmal mooy koor gi yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba alaykumus siyaam moo tax ñu ngi leen dokkeel bu baax wallaay lii lañu war a wax ak nit ñi ndax kat am na ndaw xundaa yoo xam ne xam ngeen ne ba tey ñu ngi waru waru yëpp wala du noonu ndax yéen ma seet ñu ngi waru weer yëpp waaye koor bi sëriñ bi fàttali na nan la ak ñoo war a war waaye déglu leen benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man lam yada qawla zuuri والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه woor ak ceg-ceg ñet-ñet ci deri nit ñi wala sawaay kaa ñu dàq koor ci damyee wala yoote wala lodo fu mu ne marché yoo jaar palaat yi kii marchandise mi gën a dox Sénégal fu mu ne Dakar mooy palaat yi ñu yendoo linu dàqu koor damiye dàqu koor yoote dàqu koor plage ba géej ga suba ba ngoon di fubal dàqu koor man la lam yada xawla zuuri ba bàyyiwul wax ju ñaaw waxi neen di ko jëfee ci koor gi yonent bi mu ne fa laysa lillaahi xaaja fii an yadaa taamahu wa sharaabahu demal nga lekk naan mu ne xiif ak mar rek nga ci jëlee wal ayaasu billahi hadis bu régulier nag ci koor jërë bàyyi xel boo wooree ak boo wooru sax waaye day gën a téye koor gi di ñëw man ak yow nañ essayé bis bu ne rek nga ne incha allah danaa jàng benn hisib natt nattijee bi koor gi bu koor gi di jeex nga wàcce essayé ko te testé ko ren bu fekkee daan nga def ñaar yokkal bu fekkee daan nga def ñett yokkal fexeel bis bu nekk nga mokkal benn hadis hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam niyatul mumin ablaxu min amali jàng ko mokkal ko waaye fexeel sax bu songoo izaa jaa nasrullaahi wal fath wa ra'ayta naasa taxaw xamul lu mu cee teg ne leen mbokk ndaw ko ndaam ne baneen ko moo ko tey saari gàtt yaa ngi fi bu ko kenn gàgganti nii rek lay def bu ñëwee di jël saari gudd yi rek beneen ndaw ko ndaam ne nañ ko gàgganti na ko fasalli li rabbika wanhaar ndaw ko ndaw yi dëkk Mali la Mali laa leen gis kon fexeel isa jaa nasrullahi boobu teg ci jéemal xuree alkaaf nga mokkal ko jéemal jéemal ci koor gi moo gën lëdoo moo gën yoote moo gën damyee moo gën moo gën moo gën moo gën kon bàyyi leen xel woor ruuxaaniyatu la or du xiif ak mar moo tax yonent bi sax ne la xaluufu fami saaimi atyabu inda allahi min riixil misk bi nga wooree xeñ xesaw du ma wax sax xeñ xesaw gi sa gémmiñ gi di xesaw moo gën gëttëg miski fa yàlla kon nga dégg ci ne mbir mi du xiif bi ak mar mi dafa am ruuxaaniya spiritualité buñ ci soxla moo tax ñu ne gémmiñ gi sax waxuma nag nga xëdd ca meew maak kii baak yépp bàyyi noonu ne sëñ bi mu ngee mën dina xasawee rek <laughs> waxuñu loolu waaye affaire bi ruuxaaniyatu روحانيته باي تي خيل تي كور دي لول موي صوم العارفين بالله يصومون عن عما عن عن ما سوى الله كون موي كور نلوخل صوم العاشقين صوم العارفين صوم الناظرين موي ني خامنا نيم وور ناي وون لودول يالا ولي سيالا نيم وور ناي mu ngi ci koor boobu rek yàlla yàlla defal jàmm yàlla nañ ko woor ci jàmm yàlla nangul ñu ko yàlla yombalal ñu mu ñu wooree yàlla nañ ko teewee déwénit ñu ndokkeel borom dëkk jotale ñëw ñoom ñu jotale kàddu yi yàlla yàlla def jàmm ci dëkkam bi li ngeen fi bëgg ci ci nu mu gën a gaawee muy courant bu doy te yàlla may leen ngeen di fayee facture te musal leen ci xayam ndox mu doy te barke te yàlla may leen lu ngeen di fayee facture te yàlla musal leen ci xayam yàlla may leen fajukaay yu baax te yàlla may leen wér yàlla may leen yoon yu baax yu ñuul kukk te musal leen ci xay yoon yàlla may leen it lu ngeen di dawal ci kaw yoon yooyee muy ay oto yàlla mos leen ci xayu oto yàlla tabaxal leen seen kër yi ci ciment ak fer ay étage yàlla mos leen ci xayu dëkkuwaay yàlla yombal leen leen dépasse te saxalal leen ko te yombalal leen ko te mosal leen ci jafe-jafe yàlla may leen kodda yu baax waaye yàlla génnee fi doom yu baax bu durriyatan tayiba saalihiin ak saalihaat ak borom bi xam-xam ak imam ak ministre ak directeur président de la république yépp yàlla mën na ko génnee ci suufi dagg biram gi yàlla ko yàlla def yàlla yàlla dëpp la xol yi yàlla yàlla xamal ñi jàng ci daaray alquran yeeg daaray lasaar ku fi jàng yàlla xam mu xamee yàlla bàyyi yàlla yàlla saxal fi jàmm te yaatal ko bu fi yàlla defee yàlla ko yàlla defal boo leen Sénégal yi Sénégal yàlla ko yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm ndaw ñi yenkewal leen yenkewal leen njub ci seen xel ak seen xol yal yàlla fay xay wi yàlla arrêté muy fitna yi jaar suñ diggante ak yow yow yàlla ñuy lay ñaan yàlla nga jaara diggante Sénégal ak fitna ak ñooñu fitna xay yi ci àdduna bi yëpp yàlla fay yal yàlla sàmm Sénégal ñu ngi ndokkeelaat ñëpp Serigne Amath ne xam na ñu ko bëggee woon mat na. macha allah mat na لا فد فوق ولا لقيت ما بقيت ذرة أشيخ مالك أين يدرك الباح آه، لأن رك أبنى دي كل مالك من مالك مو على الباحة مالك أما صح نيوا يوحنا سبب ببعض مالك نقول أما صح كل ما نقول هاي تمنا نواه لو سمعت دي واحد من الناس على سالون جاني بيا بس من زاكولا خير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 صراطك المستقيم وعلى آله حق العظيم اللهم صل على سيدنا محمد آله خلق الخاتم لما سبقنا صراط الحق والآتي إلى صراطك المستقيم وعلى آله Yeah.